asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 1er avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag tey sunu lamb la nay xëy doore ko yëglikaay ba tey dafa xëy ñëw andil ñu Gris Bordeaux xam ne daal Gris Bordeaux daal mu nga teg loxo ba ci gémmiñ ga mel ni koo xam ne dafa waaru la ko ko yóbbee nag yëglikaay bi nee na li am ba des Gris Bordeaux daal raje nañ ko ci lamb ji maanaam daal dàq nañ ko la ko ko yóbbee nag maanaam mooy coow li nga xam ne moom lay coow CNG ak critique ya nga xam ne moom la leen defal saa su xëyee mu mel ni kii nag du moom kese yëglikaay bi di sunu lamb nuy wax ba tey ka nga xam ne tamit mooy bombar ji dëkk ca mbuur moom aj nañ nañ ko juróom benn weer sunu làmba ko wax de tey ci premier avril ji waaye yemu ca ka nga xam ne moo di mu le roi des arènes mu Parcelles Assainies moom licence am la ñu téye waa Soumbédioune tamit mu mel ni kii loola jot nañ ca seenu wàll yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni kon daal yar ba fëgg nañ leen ko sunu làmba nu ko wax tey ci premier avril ji waaye duñ ca yem nun dañuy continuer ba tey ci premier avril boobu gis nañ koo xam ne promoteur la muy Luc Nicolaï mu mel ni kii nag yëglikaay bi ne daal tey jii mooy mooy bésu dëgg bi ci moom moom Luc Nicolaï bu 10 heures jotee fa nga xam ne mooy ca tribunal ndax nag avocat ba la muy sàkku daal mooy ñu bàyyi ko mu demu yoonam mel ni ki nag mbir mooma kon tey ji lanu koy càmbar sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit dañ koo kale pour le 11 juillet mu di ab komba muy ki nga xam ne moo di Mor Kankang ak caatu ngéwél ka fa jaar nag mooy Fallou Ndiaye yëglikaay bi xamal na ne day combat ba le 11 juillet lañu koy tëgg bu ñu fi yàlla bàyyee wala boo yàlla yóbbu nit yi kon yàlla na ko yàlla def yëglikaay ba xëy ñëw tey wax na ko keneen koo xam ne moom xëy na ngar daajoo ba muy ondu lëfu mu xam sa cosaan borom meer dëgër musóor ondu nag tey moom écrim ba di xam sa cosaan la xëy tey yàbbi fa lu tàng jër jër jër ondu daal la mu xam ne daal nee na liggéey bu baax maanaam lu sérieux nee na boo koy wër bul ñëw xam sa cosaan nee na defuñu ko tey suba waxi noppi xanaa kay ci leneen la ñu ne waaye liggéey moom jàpp na ne fa nga xam ne nii moom la bokk mooy xam sa cosaan ond nee na loola amu fa nee na ka nga xam ne moo di Malick ñu ngi moom lu jëm ci wàllum ay affaire ay écrits ay mbërëk yooyu daa jàpp na sax moom la mu ca xam est ce que bëri na Jordan itam desut de ndax tudd na ko ca biir wax ja nee na Jordan li leer ba la ay tànkam mosu koo dëgg fa nga xam ne moo ci écrit ka nga xam ne nii moom moo di na

ni ne daal mu ngay dox jëm ca VIP ndax nag douze ans yi mu defagu ci làmb ji maanaam fukkat ak ñaar mu ngi wane boppam bu baax a baax ndam ya mu am mu gën a rëy bi sëppi na ko wan ñu ko digganteem ak Zos Ama Baldé Siteu ak ki nga xam ne nii wala boog maanaam daal ñooñu moom jaar na ci ñoom te ku ci ne daan na la moo tax yëglikaay bi jàpp ne mu nga dox jëm ca VIP ya nee na nag léegi fa mu teg ay bëtam moom guy gi mooy diggante Eumeu Sène ak Gris doo ñi daal la teg ay bët fas yéenee nag defante ak ñoom yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko leneen loo xam ne tamit dañuy dem xooli ko ca record mel ni ki nag am na koo xam ne xëy nañ ko fa dal séq moom waxtaan moo di Abou Ndour muy ki nga xam ne nii moo di Evelyne Diatta moom nag mooy entraîneur national bu jigéen ñi moom daal nee na géntam wala li muy reefe daal mooy maanaam médaille olympique daal wala book champion olympique waxtaan wu yaatu daal séq na ko ak Abou mu Abou bu record moom Evelyne Diatta wax na lu yaatoo yaatoo yaatu ci liñ ko dénk ak i jaar jaara mel ni ki tey tamit record foofa fa la nu koy tëjee li am nag mooy daal li inna lillahi la ñuy wax wa inna ilayhi rajiun mel ni kii nag Pape Diouf record def na ko ca xëtam mu njëkk xamal nañu ne day Sénégal perte na papam ka nga xam ne moo doon Pape Maba Diouf daal génn na àddina moo tax président Macky Sall mu nga koy delloo njukkal di wax ne day dirigeant bu engagé lanu ñàkk Augustin Senghor tamit wax na ca nee na Sénégal gi perte nañ ko rëy rëy rëy Bakary Cissé tamit wax na ca la nga xam ne moom lañ mujj a waxtaane mook Pape Diouf waaye Habib Beye itam nekkoon ab ca Marseille nee na tamit Pape daal lam ko di wooye mooy père nee na ma tam moom itam daal fiis la ma doon wooye ma koy wooye moom père mel ni ki daal kon kañu ñàkk rëy na kon nag yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moom Pape Diouf ancien président Marseille Pape en ancien de jour mel ni kon daal yàllaa yor doole xamul ko ñàkk xamul ko am xamul ko dëkk ci néegu ñax xamul ko dëkk ci étage bu dogal bi ñëwee la ko neex lay def waaw mbokk yi ñuy suivre ci Leewtoo TV dañ leen di nuyu di leen ziar rek comme ni ngeen ko xamee revue bi tey noonu dégg ngeen ko li ci am li journal sunu làmb xëy wax que ni Gris raje nañ ko nangu nañ licence bu Modou Lo ba ma aj nañ ko ah loolu nag du yëglekaay bee ko wax du sama ay wax yaa dégg ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp Evelyne Diatta moom record moom la xëy tey dalal mu seq fa waxtaan bu yaatu ak journal bi wala boog mook Abou Ndour na ko ko yàlla defal en tant que entraîneur moo di cër koor kon ñu koy ñaanal yàlla rek loolu mu bëgg yàlla na ko réussir barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen waaye tamit di jaale Sénégal xam nga koo xam ne ñàkk nañ ko muy monde sportif yëpp ñàkk ko muy Pape Diouf parce que sport yëpp ñun ñëpp ay sportif la kon tey bu quitté ñu ñaanal yàlla ñu ñaan yàlla jégal ko yërëm ko te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jàll bépp doomu Sénégal mais di nuyu internet yëpp fu ngeen mën a nekk rek den balu ax di leen baal di leen wax ne daal du mën a ñàkk faaw ñuy def le tout pour jox leen revue bi rek loolu moo tax tout le temps ñu ngi ciy fexe sonn di ci daj ay coono fépp fu waay mën a nekk di ñu seetaan ñu ngi lay ñaanal jàmm gis naa nag dem ku bind ci commentaire yi nee seen fay mais ñun ñi ñu amul seen fay waaw ñun ñu amul seen fay parce que kuy wax kuy déglooy mbokkam kon yéen ñëpp mention spéciale yàlla na Sénégal am jàmm àddina bi am jàmm corona bi dem lii ma sol nag coach su jabang moo ma ko jox sama xarit bi la franco sénégalais maa ngi bu baax a baax mayu Chelsea bi kon maa ngi ciy profité di nuyu supporteru Chelsea yëpp yëpp yëpp yëpp di ñaanal ñëpp jàmm